ñu defal la. ah ca cameraman bi tamit sax day laal. ah fii wasaare lii wasaare rek la am barke rasulullah gisuma ko feneen fudul kii. waaw boo ki mais ki ñu seet si nag dafa nekk koo xam ne dafa am maanaa nag am personnalité. non dañ lay wër te da ngaa xew nag. mais Bassirou dañuy ñëw ci li nga xamante ne moom mooy daj dëpp gi li nga xamante ne instant bi moom moo lëmbee gaay yëpp waa ak axlu làmb ñëpp jaaxle ñu gis ni CNG tey bu dul arbitre yi bu subaa ak mbër yi bu subaa ak ñeneen ak ñeneen yow ngay liggéeyal li nga xamante ni ñi la fi teg ñu bari ne du jànjee ko wax dëgg yàlla paa ko ñaari boor la day faral annisaar bëggul feeñ day faral arbitre bëggul feeñ de faral ñi bëggul feeñ mais xeex bi nga xam te ne instant bi la gars yi xeex muy arbitre ak waa CNG ñu bari nañoo faroon ñu gis ni Sitor radié nañ ko à vie Malick Ngom 5 ans Malick <clears throat> ah? ak euh, Babacar tamit cinq ans loolu yow ba gis-gis nga ci am. xam nga man ñu bari dama bokkul ak ñoom gis-gis man Alioune du sama xarit na leer ni midi. làmb ji lañ xamante dumay may këram du fréquenté sama kër Alioune doctor la sama jabar buy accoucher si clinique buy dem di seeti euh, Alioune Sarr day yóbbu trente mille francs fay ñu defa ko rosi yaa ngi dégg bu wasinee damay fay kenn du ma may ñaar dërëm du ma ñi nga xam ne dañuy daw si gannaaw Alioune Sarr mu leen di fajal seen doom wala seen dara duñ ko fay man damay fay <laughs> yaa ngi dégg damay fay sama xaalis bi ma xamee ne sax coow laa ngi kii dama uti yeneen médecin pour sama jabar ba ñetti fa dem. waaw parce que bugguma ay polémique Alioune du sama xarit duma dem këram du ñëw sama kër du ma ko fréquenté <laughs> man Alioune Sarr dundulu ma. waaw ñoom ñoom ñoo xam ñu ngi wax yooyu ñoom ñoo xam. Alioune Sarr dund lu ma yoru sama kër yoru sama njaboot yaa ngi dégg musuma may ñaari dërëm teraanga buy am man maa defal teraanga ay Alioune mais Alioune Sarr defaluma ma teraanga ma nawloowu ma ko. parce que parce que mooy li may wax nii rek ay du ma woo duma ma ko woo sequñu dara est-ce que yaa ngi dégg teraanga buy am man maa defal Alioune Sarr moom moom ma teraanga non lool loolu moom loolu amul problème mais li ma lay wax benn affaire. man du jànje ko dëgg laay àndeeg ay nit ku mu neex na nga jël position bi nga bëgg yaa xam CNG bi mu fi nekkee du def lu yoon man kese maa doon wax li nga xam ne du yoon mbër musuma si fekk si arbitre musuma si fekk si ménager musuma si fekk si man maa la wax Alioune dëgg janoog moom bokkuma ñi nga xam ne si biti bu ñu waxee dara bu ñu demee si Alioune Sarr dellu gannaaw man bokkuma si ñooñu man maa doon défendre làmb di défendre mbër défendre képp ku am problème fii loo xam ne teg nañ la loo xam ne du yoon dinaa taxaw défendre la mais arbitre yi bi ñuy waxanteeg CNG làmb ji kenn yëgu ko te tey mbër yi di wax nii ñaata yoon la leen arbitre yi dagg ay daan yoo xam ne day metti ñu dagg seen xaalis am na yoo xam ne sax jarul woon dagg mais dañu lay jox ay sanction ñu dagg seen xaalis ñaata yoon la ay mbër wax ne bëgguñu Sitor arbitré leen ak Babacar ñaata yoon keroog bi booy ñoom Boy def jubilé Boy Kéré Zallo Balla Beye 2 mais CNG da leen fayloo or frais organisation kan moo taxaw fii kaas ko dañoo dégg kenn ku ko wax man maa ne c'est pas normal mbër yi waruñu fay Sitor mii président arbitre yi benn bés mooy wax moom mu ne man ñi bokk di wax ne mbëri nañ fay sa laa bokk moom Sitor moo ko wax moo ma ko wax par téléphone wallahi azim ma ne ko yow lu tax loolu mu ne parce que ñi mosuñu dem équipe nationale ma ne ko ndax équipe nationale mbër yi ñoo fay demal seen bopp équipe nationale dañ lay sélectionné nga dem pourquoi ngay nga def loolu yow te tey kuy critiquer CNG Sitor si biir la bokk parce que il est membre CNG Sitor si biir la bokk dagg yi si sudoor si la bokk keroog bi mbër yi fay euh, frais organisation moom mënoon na ne mbër warul fay frais organisation mais da seen man si laa ànd parce que mbër yi mosuñu dem euh, compétition mosuñu dem compétition internationale ma ne ko ndax mbër yi ñooy sélectionné seen bopp tey mbër yi di wax man maa ngi naan defendre mbër bu nekku si yoon ma ne la yow nekkoo si yoon CNG bu nekku si yoon naa ne CNG nekku si yoon Sitor munoo ñëw di bindanteeg CNG yëgaloo ko amateurs yi yëgaloo ko mbër yi yëgaloo ko kenn ba benn samedi nga ne làmb ñoom dañuy grève noo déggul ma même bu dee àjjuma ñun samedi nga ko yëg yow samedi yëgu ko si presse bi suñu làmb ay nit ñaan la say nawle ne la bàyyil promoteur bi dafa yor xaalisam mun na yàq xaalisam tëgg leen euh, arbitré leen làmb ji samedi ak dimanche bu leen dee ñu ut ñu ay solution ministre des sports woo la nga jox ko sa kàddu defoo ko fii kan mooy kilifa Alioune Sarr kilifaam mooy ministre des sports kilifa képp ku jiite fii sport ministre des sports mooy sa kilifa. Alioune Sarr est-ce que daan na leen rendre compte. daan nan la ñuy rendre yow mi am problème ak CNG yow yaay ñëw si ñun wala boo ñëwee réunion comité directeur nga wax ko fa. nga ne ah CNG de am nañ problème indiwuñu ko réunion comité directeur te yow yaa ngi toog nga ne ah man kat am naa problème ak CNG parce que ñun dañoo bind tontuwuñu ñu bind tontuwuñu lii mooy suñu problème nga wax ko biir comité directeur nit ñi li ñu si war a wax ñu wax ko si mais yow nga nëbb sa problème ba benn bës nga bëgg ko jénnee man làmb lay defaan du ma nangu promoteur bu jël xaalisam ba pare di ko tëgg arbit bi ne du am njàmb gi yàqu duma ma ko nangu pour lan ma koy nangu. Euh, ki nga li mu def ak arbitre ñoom ñaar. déggoo lu ma ne ànduma si dàq si toor bi man wax naa ko maa ko njëkk a wax ne si toor il est nommé par arrêté kon ku ñu nommé par arrêté ministériel ministre bi moo la si mun a jénne ma ne CNG loolu mënul nekk ñen beneen bi yeneen arbitre yi dama ne mënul nekk bari na. nañ xool solution bu ñu waxtaanee mais man fan laa farale CNG tey maa ngi suñu làmb. parce que ñoom président des jeunes ama président des amateurs nga fi nga fi toogal yow instant bi li gars yi di wax yow lañ ko war a wax yow nga ñoo nekk sur table mais yow mënuñu concevoir que ni. yow sax l' avocat du diable la la joxuñu ma cër seen si toor woowu xaw ma si lu ñu nekk fan laa ñuy défendre xanaa balaa ngay défendre dalay jox cër. man woo naa wax naa ko si biir euh, arène nationale samedi Sitor maye làmb ji cër bàyyi leen affaire bi moom kii tey la ko nit ñi yëg lu ñu yëg tey kay mënul nekk tey Malick woo naa ko ne ko tey la affaire bi am kon jàppale leen ñu làmb am ba samedi ak euh, dimanche bi jeex ñu waxtaan ñu bañ waaye léegi loo bëgg man may man maa leen di woo téléphone di daw seen gannaaw ñoom woowuñu ma Sitor laa waxal ak Malick ci macca bi xawma ko musuma wax ak moom Sitor mi nekk membre CNG bokk comité directeur moom la wax mooy mi seen président ma ne ko li ngay def c'est pas comme ça te Sitor ba ma ñëwee si lamb euh, arène national dama ne ko Sitor man dinaa leen jàppale mais jàppale bi aussi si dëgg laa koy teg buñ leen ñaanee njekk pour làmb ji am promoteurs yi dañoo uti seen xaalis xamuñu ndax dañ ko leb wala fu ñu ko jëlee nga ñëw tey tey tey ne làmb na ne te xaalis bi du xaalis CNG il faut nit ñi xam ne ñoom surtout lu ñu naan bind nañu bind nañu bind nañu benn kuréel si làmb ji yëgu ko le 30 bi passé lañ ko yëg il faut nit ñi xam loolu buñ ko yëgoon bu njëkk kon ñun waxtaan nañoo ak CNG ànd ak ñoom si xeex ba ñu am seen assurance wala am lu ñu bëgg te loolu mooy yoon. kuy arbitre nag assurance même ñun nii Moussa Thiam day dem laajte ndax euh, promoteur bi indi na assurance bi wala déet assurance dafa war am si stade bi. nit non. ci li déglu ma bu dee kaas li ñuy waxtaan ñu wutal leen assurance yokk seen pourcentage yooyu yëpp man critiqué wu ma ko yoon la mais nañu waxtaan ba juboo moo gën nekk fii si presse bi di wax nit lu bon wala di wax nit lu ñaaw. beneen bi man teguma fi Alioune Sarr Alioune Sarr il est par le euh, euh, par euh, par par arrêté ministre de sports du ay élection ministre de sports du mën a tey Alioune na fi jóge man loolu du sama kàllaama parce que du man maay fal bu doon tey ay élection la mun nañ ne ministre de sport kii mun nañ am koko gën a kii Alioune Sarr nag bàyyi bi si moom la dépendre moom mi nga xam ne tey moom la nit ñi di wax moom mooy xool conscience am ak njabootam ak li kay nit ñi di wax buy bàyyi mu bàyyi bu bàyyiwul mu noonu mais man du man maay wax Alioune Sarr parce que du sama xarit bu doon sama xarit la tey ma am décision si moom boo xam ne war naa ko mën a wax mun naa dem këram wax ko li ma xalaat man mais du sama xarit sama yoon nekku si loolu du sama xarit défendre ma Alioune Sarr encore une fois défendre ma CNG dëgg laay défendre défendre ma kenn de ñoom arbitre yi woowuñu ma. waxuñu ma léegi kaay ñu gisante ak yéen pour yéen amaate pour xam problème bi nii la demee nii la demee nii la waxuñu ma si dara waaw léegi buñ ma waxul dara man lan laay wax man presse bu ma laaj ma wax li nga xam mooy dëgg te moom laa xalaat ne mooy dëgg un point intérêt. 109 d'accord nga ci wala d'accord. 109 ku si d'accord. parce que gars yi neen dañoo soxla ñu bees ci CNG bi Alioune Sarr 25 ans de pouvoir. doy na mais en tant que président des amateurs loolu lan nga ciy wax. no kooku wax naa la ko léegi. mais yow mais yow yaa fi toogal gars yi ba xam d' accord. man xoolal ba ma toogal gars yi ñaata ñaata amateur am na dama mën a nekk seen xel wala ñoom dañoo nekk sama xel. d' accord nga ci. d' accord naa si yi ne ñu bees lañ soxla ay xale lañ soxla. d' accord mais mais mais ñu bees lañ soxla kooku dépend mu ngi dépend si ministre des déedéet non man xoolal xoolal ñu bees ak ñu màgget ak ñu defar déedéet man njiit laa si benn place waaye déglu ma lu ma bëggul ñu wax ma ko du ma ko wax jàmbur Alioune Sarr ministre des sports moo ko fi teg bu ko neexee suba mu jóge fi fal ñi ko des xale lay fal ak wala ministre des kooku ministre des sports la laaju ma si xalaat sama yoon nekku si gis nga man lu ma nit dugul sama yoon nekku si. bi dama ne la. yow yaa fi teewal askan wi ma ne la ñi xam nga ñi ci mbedd bi ñëpp tey ñu bari da ngay dégg ñu naan instant bi doy na doy na léegi ñun dañoo soxla ñu bees ba xam yow soxla nga yow ñu bees ñi gars di wax ba xam d'accord nga ci loolu d'accord soxla ma ñu xam nga lan laa bees ñu compétent laa soxla fu mu toll boo naan ñu bees nit mën na ñëw nul ba nga xam ne kenn kenn du ne déedéet làmb Alioune am na lu mu fi liggéey am na lu mu fi liggéeyu defar na am na fu mu defaree làmb am na foo xam ne dem na ma nga xam ne ah, y a des problèmes aussi waaw ah, parce que non parce que lépp lépp nit mënoo jiitee ne lépp 100 pour cent la mënul nekk donc keroog dégg naa la sa kii booy keere di wax naan keroog assises yi ñëpp ñoom dañoo ñëw ñu def ak man réunion ñu waxante ay li ñu war a euh, defante sa suba sa ma dégg Moustapha Gueye il est recevoir par Aline Sarr ci ci kanam Gadiaga ministre bi gis na ko ñoom ñu tukki arrêté ba ñëwaat bëgg ma wax ay nangam ma ne déet man dama ànd ak ñoo xam ne dëgguwuñu li ñuy def nit da ngay dëggu. non ba booy eh, waaw waaw ma ne leen nit da ngay dëggu man duma ma ànd ak ay nit te dëggu amul te man duma ma saaga nit wala may wax nit lu bon booy kere moom keroog ba mu ba mu booy kere war na wax lépp ba mu ba mu des man. parce que ba ñuy ba muy ba muy bëree may ànd ak moom du tey. mais Bocar est-ce tudd. tudd na la sa émission nga ne ko tudd mu ne président des amateurs moo wax man lu may tuddee man ba may ba may wax Alioune dëgg ñoom fu ñu nekkoon man ba may wax fii CNG dëgg ñoom fu ñu nekkoon man yàgg naa wax man làmb ji man kese maay wax dëgg man maay wax kayre ci euh, Alioune du sama xarit. Boy Kaïré sama xarit sama xarit du sama xarit moom xam na moom xam na xam na moom xam na fi ma jaar ak moom Rue 23 googu Medina ñoom Ousseyn Paye ak ñoom euh, ñëpp xam nañu ma Kaïré kan mooy du jaañ ak Kaïré tey nag bu demee si ay euh, presse di ma jéem a attaqué du ma wax dara mais moom mais moom war na ma xam xam na moom bu baax xamu ku ma xamul mais Boy Kaïré xam na ma moom nag bu may attaqué. amul problème koo xam ne yàgg nga ñëw di ma wax ah, vraiment je te encourage yow gën a nang du jaañ nangam ak nangam tey nga toog seen na man dama ànd parce que ni ñu xeexee baaxul te man du wax ak nit ba pare nga dem sa yoon gisuma la dégguma la ngay wax xeex bi lan la Alioune Sarr mu jóge fi wala mu nekk fi nañ wax si Alioune bu ñu wax si vie privée jàmbur bu ñu wax si keneen bu ñu wax si keneen. après wax bi dafa bëri si presse bi ba Sénégal yi maanaam reconnaître suñu sax nit ñi nit mën nga wax moom si njëkk ak doo wax lu bon doo wax lu ñaaw man du ma saaga kenn du ma wax kenn lu ñaaw dëgg nag yàlla moo ko moom ñaata yoon la Sénégal yi di wax di ŋaññi arbitre yi fii Sénégal ñaata yoon mbër yi di leen ŋaññi ñaata yoon yow ministre des bu la ñaanee nga jox ko sa kàddu war nga ko def. parce que tey affaire bi nii ngay gis nii si waxtaan lay mujj xeex la nga mës a seeg xeex bu xeex bu mujj jàmm mënul nekk il faut ngeen toog ñu ñi toog ñu waxtaan juboo am lépp jeex mais bu dee ku nekk ngi xeex di wax lu bon di wax li day gën a yàggal mbir mi dara du sotti tey ñoom ni alof Ndiaye di wax dañ lay jiyee fasu yaabeer duñ la ko gubleen am na ñoo xam ne dañ lay naan di la woow muy taxawal bu dem fii nangam te duñ la régler sa problème boo amee sa problème yow kese nga man loolu duma ko defal nit man da problème bu amee damay ut dañuy ut ay solution ñu ànd nekk benn CNG ay nit rek ñu ñi ay nit war nañ toog waxtaan nekk benn ministre de sports nag mooy kilifa Alioune di kilifa képp kuy sport fii kon bu la ñaanee war nga may ñaata yoon nga gis fi grève ba ñëpp ni grève ministre bu woo leen gaa yi bàyyi ñaata yoon ñaata yoon la fi am parce que ay accord mooy waxtaan il faut nga waxtaan boo waxtaan doo am li nga bëgg boo waxtaan bu dee xeex réglé wul dara saaga réglé wul dara nekk si presse bi di wax du jaanjek nekk lewul dara toog naa si rajo ñu woo Malick nekk si émission bi ma toog ñu woo ko téléphone ma ñaan ko njekk defuñu ko kon man man lan lañ may sikke lu ñu bëgg man maay wër di wër euh, Malick di ko woo téléphone wala di wër diw di ko woo pour lan ñoom buñ ma seet woo woowuñu woowuñu ma loolu laa la di wooye comme ñoom dëgg gi ma wax pour ñoom daleen di yàqal wala ànduma ak ñoom buñ ñëwoon tamit dëgg laay di wax li ngeen def bañ leen ñaanee njekk waroon ngeen maye léegi nag solution yi lii la ak lii nañ si dem boo leen bëggee ñu dem si ànd waxtaan pour mbir mi réglé wu am nga yaakaar kon liñ leen euh, suspension yi am nga yaakaar ñu dindi ko Malick Ngom ñëw defaat liggéeyam Sitor ñëw defaat liggéeyam ndax yaa ngi dégg sax ñu naan arbitres yi ñu jël ce sont des arbitres locaux ñu dara ay stagiaires la est-ce que loolu tamit du ray làmb ma ne arbitre locaux ñaak man yooyu yëpp sama yoon nekku si man li sama yoon mooy yàgg nañ si làmb ci mais tamit xam nga tey Père Doudou man soo nee ay mm, loolu sama yoon nekk si daf may xaw a jaaxal parce que tamit yow amateur nga yaa ngi xool. yow mais dama bëgg nga déglu ma. yow léegi loo bëgg ñoom bu ñu grévé rek kenn kenn ñu làmb làmb yi nga xam te ni tey. non léegi nii xam nga làmb nii xam nga làmb amul. non waaw loolu jeex na ay journée la woon xam nga jeex na léegi làmb amul fii mën nañ fi waxtaan balaa làmb di ubbi ñoom ñu mën a dellu seen place. mais parce que xam nga tey gis nga tey bunt bi mooy ministre des sports parce que moo jiite Alioune moo jiite membre CNG ya fa ne Sitor membre CNG la tey bu ñu bonalee Alioune Sarr lépp lu Alioune liggéey bu Sitor sa la bokk nañ wax de dëgg parce que il est membre CNG tey bu ñuy tàccu CNG dañuy tàccu ñëpp Sitor mii sa la bokk kon bu ñu bonal bu ñu bonal Alioune Sarr bàyyi Sitor sa la bokk bu Alioune Sarr bonee Sitor bon na parce que sa la bokk mais on a sem tey nit boo àndeek moom di liggéey <laughs> ngeen bokk bureau mais lu mu def lu baax sa nga bokk lu mu def si lu bon fa nga bokk dañ wax di dëgg kon ñoom am nañ problème moom fekkee day bind CNG ñaata yoon mu mu mu bañ pourquoi pas mënul démission pourquoi pas mënul démissionner wala pourquoi pas mënul woo kuréelu làmb yëpp wax leen ko pourquoi pas mënu bind ministre des sports xeex mënul régler dara saaga mënul war dara li ñuy wax ni man bi may kaas teg yi fal Alioune Sarr mu ne ministre des yaa ngi fi woon ministre des sports lay rendre compte dama ne ko loolu amul li ngay wax amul dañ lay wax arrêté pour ngay def assemblée générale pour ngay def euh, assemblée générale d'information il faut nga informer ñi nga jiital defal li article bi wax. léegi ñu ngi koy def ñaata at defu ko man si loolu laa doon xeexee CNG te loolu kenn du ko jindi mais du musuma jël Alioune Sarr wax en tant que Alioune Sarr dara bu bi mu suspendre ay mbër dama taxaw ma ne yorul maana keroog booy ñaa bañ koy suspendre man rek maa taxaw ne suspension bi jaarul yoon te muy dëgg parce que amul si taxi yi lu amul si taxi lu tax ñu lay suspendre. taxaw naa ma ne bari na. man maa taxaw ne bari na pourquoi ñoom waxuñu du jaañ day ci ngi jàngi wala du jaañ nanga ma ne xam nga lii affaire bi mooy lan nañu bàyyi nit bu waxee dëgg rek nga ne kee la féete wala fàngam la féete encore indi fois Alioune Sarr du sama xarit xaw ma këram xamul sama kër du sama xarit du ñuy waxante téléphone chaque jour chaque jour téléphone chaque jour ki ngay waxal chaque jour chaque jour. wala chaque jour téléphone kooku mooy sa xarit wala ngeen di demalante man demalante ma këram dina am ngénte duma ko yëgal sax du ma fa dem moom du ñëw sama ngénte doom koo xam ne yow tey sa doom sa jabar fa lay accoucher mosul ñëw sa tudd kon yow kooku foo xaritoog moom man xarituma ak Alioune Sarr. ñu ngi bu baax a baax. Fatima maa ngi lay gërëm di gërëm sa caméraman di gërëm képp ku seetaan émission bi si internet di ñaanal réew mi jàmm di ñaan yàlla nañ yàlla musal si feebar bu bon bi. si réew mi si jàmm nga xam du demati beneen réew ci barke Seydina Muhammad sallallahu di nuyu kilifa diine yi di nuyu kilifa aada di nuyu mbokk amateur yi di nuyu képp koo xam ne ni sopp nga làmp nañu waxtaanante si ay xel bañu wax lu bon bañu wax lu ñaaw jéem a xool solution bi arbitre yi dellusee ñu ànd ñun ñëpp defar làmp man du jànje ko faraluma Alioune Sarr faraluma arbitre yi làmb laa faral dëgg nag moom la yàlla bëgg ku nekk ak sa bàmmeel lépp lu ma nit wax si sama dëkk baal naa la àq yàlla bu la yàlla bindal bàkkaar lépp lu ma nit wax si sama dëgg maa ngi ñaan yàlla defal la yiw defal la sutura yokk la merew ma kenn lu neex waaye nag mun nga ko juger si man mais yàlla suñu borom xam na man ànduma ak CNG ànduma ak arbitre yi damaa bëgg a làmba dox nañu waxtaan bokk ndey bokk baay ut ay solution yu làmba dox nit nag loo ma wax jéggal naa la yàlla nañu yàlla boole jéggal si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ni ma koy waxee rek ah les internautes di leen béggewaat bu baax a baax naan leen kontaan nañ yéen a ngi siy jàpp nag yéen a jàpp ci combat bu baax a baax di nuyu nag partout dans le monde képp koo xamante ni rek yow yaa ngi suivre Wassare Lamb Wassare TV ñu ngi lay béggee bu baax a baax a baax ni ma koy waxee rek à chaque fois lay fatigable Basiru di la béggewaat bu baax a baax a baax di la ñaanal yal na sa jàmm yàgg kon ni ma koy waxee rek Wassare kese ah Fatima di wax nag commencé guñu dañuy fo rek. dañuy foo commencé guñu comme que coronavirus bi dafa dugg moo tax ñu commencé di foo ak rek mais bu ñu commencé di ngeen xam ne lépp dëgg la Basiru ah xanaa nag dañuy waajalaat rek dem seetiwaat beneen beneen kii beneen champion wala dem seetaat seetiwaat kenn ki xam te ne dafa xew ndax nee naa leen borom buzz yi rek la ñuy wër instant bi gars na nu ñëpp xaar mbëri amateur arbitre yi noonu lañ koy defee rek loolu jàmm-jàmm ko kon kon ziyaare ah.